réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll maintenant yéen ñii safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi ki nga xamante ne moom moo di Aminata Assome Diatta moom nag nekkoon ki nga xamante ne moom moo di ministre buñ dénkoon wàllum njaay mi mooy ministre euh, de la commerce moom daal moo daal di bàyyi ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall won ko li nga ne moo di gannaaw lépp loo xamante ne bokk na ci APR ak Benno Bokk Yaakaar daal di ko bàyyi xamaguñ nag exactement fan la daal di dem te nu mu ko defee nii Macky xaar ñeneen ñi nga xamante tamit ñoo ko war a daal di bàyyi nag gis nañ ki nga xam ne moom moo di nguuru Macky Sall daanaka sept mois kese moom moo fi daal di des kon nag ñi nga xamante ñoom ñoo fi nekk bëgg rëcc wala rëcc lee nga xamante ni moom moo di seen bopp dinañ def la tout ba jéem a bàyyi wala sax ñu jéem a dem si yeneen parti politique yi nga xamante ne am nañ espoir sax buñ demee élection dinañ jéem a gagné su ko defee daal ñu rawale li nga xamante ne moom moo di seen bopp ndax nekkoon nañ ci nguuru Macky Sall ñii di sàcc ñii di lu luwal ñii di def lu kenn xamul mais ñoom ñëpp di leen payale pour caché